asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen comme ni leen ko waxee nag groupe Equivox moom groupe de presse bi nga xam ne maanaam daf fi nekk pour Sénégal yépp maanaam amul maanaam daal ñëpp la fi nekkal moo tax nag tey ñu ñëwal leen ci ku nga xam ne ni yaakaar naa ne ah li tax ñu seet si ko bu ngeen ko dégloo di ngeen xam ne ku jar seet si parce que li tax mooy moom maire la ci commune ba mu dëkk muy Lat Mbengue mooy maire commune ba ba pare tamit nekk directeur général culture lépp lu ñuy bay ci wàllu fruits ak légumes moom la ko président dénk muy docteur Macoumba Diouf fan yi ñu génn ñu dégg ka ni moom nommé nañ ko maire maire ci région de Kaolack bi yépp lu ko waral mooy liggéeyam ci at mi nga xam ne moom lañ génne loolu nag tey bëgg nañ ci mu indi ñu si ay leeral leneen loo xam ne tamit des na hélas ñu war ko ci mën a laaj mooy mbirum horticulture fi mu nekk nii naka lay doxee digganteem ak baykat yeeg mbas meeg yu mel nekki noonu parce nag defe yooyu yëpp jar na leeral kon tey daal Babacar la ak yéen ci beneen facette euh, docteur maa ngi lay nuyu di la ziar. Babacar maa ngi lay fay bu baax. Mhm. di la gërëm. Mhm. Euh, Mm-hmm. tey mm-hmm. te ñu miin ko ci yow mm-hmm. miin ko it ci Equivox TV ndax ay la yéen euh, ci njobootu presse du ma ne kenn euh, ñàkk na solo waaye ci ñi ngi ci gën a am solo ci ngeen bokk ku nekk gis na leen ci fànn yu nekk te loolu nag moom a ci gën a neex mooy lu am solo ci réew mi ji ab yëngu rek ñeel waa réew mi rek soxal na leen yéen yéen waa ex Equivox TV muy ay kuréelu kuréel bu ay ndaw yoo nga xam ne tey ñoom ci ñi réew mi yaakaar pour ñu jëm jog jublu ci suñu émergence ndaw yi nekk Equivox ci la ñu bokk ndax entrepreneuriat la nguur gi woote te loolu ngeen nekk moo waral ngeen taxawal lu am sol nii kon ginnaaw dala leen jàmm fii ci kër gi mm-hmm. bég ci seen dikk mm-hmm. dama bëggoon féliciter leen d'abord ci initiative bi waaye ànd ak sénégalais yëpp mm-hmm. ndax bari nañu lool ñu leen di suivre seeni ay téléspectateurs ak seeni ay euh, euh, ñi nga xam ne ay internautes lañ leen di euh, tuddee. Mhm. ñu leen di seetaan waaye man daanaka mën naa wax rek mhm. télé. parce que mhm. seetaan bi ci yéen dafa siiw ba nga xam ne. Uh-huh. amul différence. Uh-huh. ak télé yi ci euh, réew mi kon daal. Uh-huh. bu loolu mënuma ko ci woon a ñàkk a euh, tudd. mu doon ñaan. ci yàlla def ndam ci seen kuréel gi. def leen yokkute. yéen a ngeen a xam fa ngeen teg seen bët. yàlla na ngeen fa weesu. terminé nag euh, sa téléspectateur yi mhm. wax naa ko sa téléspectatrice yi ak mhm. sa internautes yi nga xam ne mhm. ci Sénégal ak ci diaspora bi yëpp dañu leen di seetaan am na solo merci beaucoup ci reconnaissance bi ak nuyoo bi macha allah docteur Macoumba Diouf la ba tey di ngeen ko xame rek docteur damay ñëw ak yow rek tout droit ci euh, parce que mbay mi laa bëgg mujj mais dama bëgg a jëkkee ak yow ci région de Kaolack ban année nga nekk meeru Lat Mbengue ndax da nga ci am nga ci ñaari mandat wala benn mandat nga ci jotagoo am en attendant mu gën a dugg ak yow ci la moo tax ñu nommé le maire foofu. Eh, jërëjëf Babacar euh, ci laaj bi man maa ngi nekk euh, maire ci 2014. exactement le 17 juillet 2014 lañ ma installé ma nekk premier maire. bu commune bu Latmingué li tax ma wax premier maire hmm. mooy xam nga ni eh, jaajëfati président de la république Macky ci ayam la ñu amee acte trois de la décentralisation hmm. acte trois moo indi loolu ñuy wax communalisation intégrale maanaam lu doon communauté rural hmm. bu njëkk mu soppi yépp def leen commune ñu wuute ci ay moyens xëy na ndax dëkk yi commune yu njëkk ya yi gën a taaxe hmm. xëy na ñoo ñu ëpp ay moyen ndax yëngu yi sos koom-koom bi dem ci seeni kees xëy na fa la gën a yaatoo waaye ci wàllu dignité ñun ñëpp ay maire lañu maanaam amul benn daraja bu ñu meeru dëkk bi nga jàpp ne moo gën a mag ci réew mi ëpple meeru commune dëkk bi gën a tuuti ci réew mi ñu ko loolu la mu teg ko ci li ñuy wax équité équité mooy yemale askan wi gox yeeg gox goxaan yi jox leen seen aq wan leen ne doole ji mën naa wuute lim bi ca ña leen dëkke gox yooyu mën naa wuute waaye solo bi benn la gox ak gox goxaan gox ak gox goxaan rek la bu ci nekk mën naa wuute wéet wuut wuutu moroomam kon loolu moom lañ tuddee communalisation intégrale kon xam nga amuloon maire mm-hmm. li ñuy wax président de communauté rurale mm-hmm. moo de conseil rural mm-hmm. moo amoon avant man kon moo tax ma ne la man maa njëkk a nekk ku ñuy tuddee maire ci commune bu Latmingué taarix nar koo jàpp muy lu ñu sante suñu askan ginnaaw bu ñu ko sante suñu borom ak suñuy wayjur waaye aussi wax naa la ko léegi sante ko son excellence Macky Sall président de la République bi nga xam ne moom moo indi communalisation intégral ba tey ñu ñuy tuddee ñun ñëpp maire euh, waaye uh-huh. maa ngi njëkk a nekk nag ci 2009 uh-huh. conseil rural ok yoroon ci conseil rural ba uh-huh. commission bi ñuy wax agriculture élevage ak environnement maanaam bi ma nekkee ci 2009 conseil rural waaw euh, commission bi yëngu ci wàllu mbéy wàllu càmm mhm. ak ci wàllu alam bi àll bi man nañ ko dénkoon ci wàll di génne ay xarañ mhm. eh, ay xalaat yu xarañ di wàllu wuti ay partenaire mhm. ak di saytu loolu daal ca commune ba ci commune yaa ko yor kon c'est une façon moo wax la ne nekkul guléet ma nekk ci conseil rural waaye moo ngi nekk guléet ma nekk maire nga nekk maire am na solo macha allah léegi nga bi ci li nga wax noonu ñu tabb comme maire depuis 2014 ba tey est-ce que tey docteur Macoumba Diouf bu toogee xelam dina ba mu jiite nekk fa maire tey mu nga fay def li nga xam ne ni moom la askan wu bëgg est que tey bu maanaam yaa ngi yëg ne daal yow am nga satisfaction tey ci commune bi nga xam ne yaa ngi yaa ngi ko jiit ci liggéey boo xam ne yaa ngi ko fay liggéey wala lu fa manqué askan wi soxla ko loo xam ne tey taxaw nga leen ci. aj bu am solo ndax li tax ma ne moo am am na solo a mooy looloo waral man ma dugg ci politique ba nekk ci maire loolu lan hmm. mooy jël sama bopp jox ko cëralee ko njukkalee ko sama askan sama bopp nag mooy sama as xam-xam sama as wërsëg samay relation yu néew ci partenariat sama jaxasoo ak nguur gi sama lépp daal dama jël njukkale ko sama askan euh, ndax dama jàpp ne dama ko ameel lépp ndax falaa juddo yaroo fa màggee fa waaye falaa jànge ci sutura suñu borom njàng ma bët ba indi ma fii ma toll tey ci wàllu administration ak ci wàllu mairie man ni ñuy wax euh, doomu école publique wala produit école publique moom la nguur gi moo fay ma jàng ndax moo fay tabax ay classe fay ay jàngalekat maa ngi fàttaliku xëy na mu ngi yàgg si waaye kaki dañ ñu ko doon tuuse te duñ ko daan jënd maanaam ci gàttal daal ci subvention nguur ci la sama njàng bëtte ba ma ñëwee université amoon naa bourse dimbali na ma ba ma jógee ci université amoon naa bourse France pour def sama njàng mi gën a kawe dañuy wax DEA bët doctorat mhm. bourse France laa yoroon mhm. loolu it nu suma réew jaxasoo ak France moo taxoon ma am moyen yooyu kon xam nga ni mhm. su ma nee ba njàng moom bët ba ma am lu ma am ci xam-xam rawat na mu jëm ci affaire mbay nga xam ne moo gën a siiw ci fa cosaano cosaanoo yaakaar naa war naa dellu foofa pour loolu ma jot am lépp ci xam-xam ci wërsëg ci relation ci duggalante ak génnlante ma yóbbu leen ko pour mu doole la nekkoon li tax sa laaj bi nag ma ne dafa am solo mooy bi may jot maire bi quand ay la yéwén daanaka lu am solo amu foon ci Lat Mbengue waaw ci wàllu akki waaw wàllu administration locale waaw ay la yéen wax dëgg yàlla lu am solo luñ mën a vraiment joxoñ hmm. amu fa kon ñu te loolu waaw lu ma mettile woon ndax maa ngi ko doon gis te xamoon naa ne sama salaire bi rek mënu ko waaye boo àndee ak jamaaru fàkk tëdd bu mel ni président Macky Sall ay la yéen dina am na fu mu ma teg te xëy na sax <coughs> mérité ko mhm. ci wàllu li mu jàpp ne moom lay liggéey mhm. waaye am na it fu mu ma teg ci wàllu jàpp ne am na lu ma yéene sama gox mhm. ba mu dimbale ma ca ba mu yaatu lool xëy na bu ñu duggoon ci bilan tey sa émission bi fi lay yem te du tax mu pare waaye dama lay jox exemple rek bi may jot commune bi euh, ñetti dëkk ñetti dëkk ñoo amoon courant ci maanaam ci commune bi yëpp ci commune Latmingué commune juróom-ñetti fukki dëkk ak ñeent. juróom-ñett fukki dëkk ak ñeent ñoo composé commune Latmingué. waaw bi nga koy jot ñett rek sa amul courant. waaw ok et léegi nii am nañu fanweer ak ñett. yoo am courant. waaw. ok xanaa diggante 1960 bi ñu amee indépendance ba 2014 le 17 juillet bi ma jotee maire bi mhm. li ma def ci juróomi at wala juróom benni at moo ëpp. li fa amoon lañ fa defoon ci fànn bopp te bu dee gënal na la mën nañu dem ci yenn aspect bilan pour nga gis loolu waaye damay ragal sa émission bi jeex te bilan bi du jeex kon tontu bi day doon waaw mooy ah. sant suñu borom lool mhm. ginnaaw ba ma samay sante euh, ginnaaw sant naa samay way jur lool mhm. ginnaaw ma sante suñu borom mhm. waaye sant président de la république ndax loolu may yéene woon suñu borom dimbali na ma ci. mooy dama ñëw pour nekk seen alal nekk seen njariñ yàlla ubbil na ma bunt xëy na njort naa ne jàpp na ne yéene boobu selloon na dëgg woon na ba dimbali na ma ci ba ñu yegg ci lool waaye nag bu doon lu ma koy laajaat dama ko daan xaajuma doyal waaye sant naa suñu boroom pour tontu sa laaj ndax nag ma laaj ndax am naa ci satisfaction. Mhm. waaw la ba yegg ci loolu. waaye nag doyalu ma. doyalu ndax fa may jëm ak ñoom. yeggaguma fa. kon daal maa suñu borom. waaw ma yegg fa ak ñoom. kon deuxième mandat bi daal da nga ko fay laaj. ci ko waaw deuxième mandat bi bi laa wax euh, quoi. Euh, koo laaj. mën a indi coow. ca Lat Mbengue. waaw. Ah. kooku moom. Ah. Euh, xëy na di nga am occasion dem fa def. micro trottoir incha allah dem dëkk ak dëkk. Mhm. ci lu ma dul yëg mhm. ma jox la dëkk yi nga def nga def tirage au sort mhm. euh, dëkk yi génn mhm. nga déparé fii gaare ci buntu dëkk ba koo njëkk a dajeel ba muy limu nga wax ak ñoom après ñu waxaat euh, li tam wax la loolu mooy di nga am firnde ni fexe ba ma ñàkk a nekk moo gën a jafe fexe ba ma jot maire fexe bu du ma nekk candidat kon yow yaay ñëw am problème yow sa bopp. <laughs> kuy <laughs> te problème du ak man. <laughs> ak ña ña nga xam ne jàpp nañ ni. Uh-huh. bu doon seetu. Mm-hmm. ñu ngi gis seen bopp ci maire bi. Mm. bu doon maire bi existé wuloon dañ koo war a sos ci ñoom seen xalaat laa wax de ak seen wax. Mm-hmm. ñooñ ngay amal problème. loolu nag sant naa ci suñu borom lool. Mm-hmm. moo tax muy tey di suba. incha allah bakkan la ñaan rek yàlla may ñu ñu fekkee ko. Mhm. ak wér mhm. kon tal. Mhm. waaye incha allah doxantu lay doon bu soobee suñu allah loolu dinañ ko def dinañ jéema a waa dëkk ba xam parce que tamit dafay baax lii moom euh, li tax ñu nar ko di def mooy que ni bëgg nañu di xamal maire yi wala ba population yi seen maire yi naka la ñu yore seen dëkk yi te lu mel ni daf ci am solo léegi su ma ñëwee parce que boo tënkee kon su ma la déggee moom ne nga am nga mbégte ca yorin nga lool te waa dëkk ba bég nañ ca léegi boo ñëwee yow ñun nominé la ci benn mandat ñun def la maire maire ci région de Kaolack ci commune bi nga yore muy Lat Mbengue loolu nan loo ci mën a leeral sénégalais yi jërëjëf Babacar d'abord dama bëgg a euh, sant ñi nga xam ne ñoom la yëngu yëngu maire yi soxal ba ñu jóg di def ab natt at mu ne ci lu jëm ci maire yi ñu jàpp ne ci seen gis-gis ñoom ñoo gën a ràññiku ci jege ak taxaw askan waleen wóolu ñoom lay gërëm muy presse bi ay organe de presse yu nekk fële la ci Kaolack commune maanaam ci région de Kaolack mais Kaolack commune. ci commune bi fa la ñu basé. ok nañ sax Latmingué di ma defal si interview. waaye ay la yéwén maa ngi lay giñal ni bi ñu koy def man yëguma ci dara dama toog. ba sama xale yi nga xam ne ñu ngi tout le temps ci réseaux sociaux yi yónnee ma message ne ma ndax gis nga li presse bu Kaolack organe bi ko doon def publier ma ne ko déedéet ci yow ma ne leen lan na mbaa jàmm ñu jox ma xibaar bi après def naa yëg nga ko noonu nga ko yëgee. presse bu Sénégal yëpp jot ci. jot ci ma bëgg ci lool mais ma sant leen ñoom. ndax d'abord bi may góorgóorlu as tuut ba ñu jàpp ne ràññeeku naa ci yëngu pour sama askan ñoom ñu wax ko taxuloon ñu siiwal ko ba sénégalais yi wax ci taxuloon li taxoon mooy ña moom yëngu boobu te woluma ba falma yëgal seen bopp fañ toog te seen kër yaak seen dëkk ak seen tool ak seen yëngu ya këni man doon naa seen njariñ këni li taxoon ñu fal ma ñoom gis nañu ko loolu moo taxoon may yëngu mais yëngu ma woon pour que ñoom ñu def ci ab nat siiwal ko kon xam nga nekkuma candidat à rien du tout pour mu leer mhm. demandé wu ko mhm. waaye nag bu ñu mënee ci suñu seetlu yu ñu teg ci ay natt ci ay critères ndax am na ay ay nattukaay yu ñu jëloon yow yaa génn ba dama naan alhamdulilah jàppee ko rek xiir ci fas wu ñuy dawal mm-hmm. wala ci mbaam mu ñuy dawal wala peeru nopp bu ñuy dawal mooy làbbali làbbali waaw man noonu mm-hmm. laa ko gisee mm-hmm. dina daral sama xarit ni ndekete su dee sori naa yoon wi ma bëggoon a jaarit du lool kon ni ma desee mooy xëy na waaxu loolu it lu mu def ci man la ma sant ci yàlla eh, indi na it <coughs> mbégte ci man ci ni gis yëg naa ni waa commune ba maase nañu eh, dëggalal ñi wax loolu ne leen li ngeen wax wéeru na ci dëgg loolu yëg naa ko ci waa ba te loolu na ci li ma gën a neex la bokk mm-hmm. ndax bu waa commune ba dëggalul loolu yow ngay dugg ci commune jaamur naan nit ñi seen maire baax na dañ naan dañu borom xam-xam buñ ne am na xam-xam dañu ndax borom xam-xam ko wax buñ ne ni baax na mais dañ naan ndax mbokk yi ñoo ko wax kon bu dee mbokk yi waxuñu ko ñoom ñu jël seeni natt wax ko te dëppoowul a dëgg gëm naa ni unanimité yombul ci àdduna mais gëm naa ni kon di nga dégg euh, son de cloche li ñuy wax son de ci tubaab maanaam yeneen kàddu yu bari yeneen yu wuuteeg yooyu te bu boobaa xanaa ñoom it daañ génne ay preuve que ni li ngeen wax amul waaye yaakaar naa ne déggaguloo ko man it maa ngi sant yàlla agum déggaguma ko kon xanaa loolu niiru na dëgg niiru dëgg kon lu may sante suñu boroom la sante ko ñi nga xam ne ñoo def natt bi waaye aussi nag sante ko président de la waaw hmm. ndax natt ba. Mm. ak ci fànn yu bëri la nag mais boo boolee lépp. Mm-hmm. ci bilaawu yorinu commune ba rek. commune ba la ci fànn yu bëri. mais yorin boobu euh, Babacar. Mm-hmm. def ci am. Mm-hmm. lu nga xam ne xëy na sama xarañ as ci la joge sama xam-xam ci administration central déjà wàccee ci administration locale. sama xame ci wàllu partenariat. waaye lu ci baree baree bari mhm. mu ngi jógee ci li ma nguur gi dimbalee mhm. ba ma mën ko faa def mhm. ma soog caa teg nag as tuut li ma am ci wërsëg doon ko ca dolli ba ñoom ñu yëg ni maa ngi cay def li ma moomal sama bopp ak li nga xam ne samay partenaire ñu ngi ma koy euh, doole muy ndëgër laay kon il faut ma sant nguur gi waaye jiital ci président de la république président Macky Sall mais il faut ma gërëm aussi ministre bu ci mel ni le ministre Oumar Gueye nga xam ne mooy yore affaire u maire yi ndax yëg nañ ni mu ñu solalee robbu avocat di ñu defendre mhm. luñ ko ne taxawal mhm. jëfe ko mu jëm ci maire yi mhm. da koy baral loola taxaw tey ñu ngi teel a jot suñu ay financement li ñuy ngur gi di jox mu ngi yokk at mu ne waaye surtout mu ngi gaaw a yegg si loolu ay la yéen monsieur le ministre mm-hmm. et maire de Sangalkam Oumar Gueye mm-hmm. ci ayam bien sûr am na ci ay ñu ko jiitu mais ci la accélération bi mm-hmm. gën a amee gërëmee ko aussi suñu xarit suñu doomu ndey suñu président Alioune nga xam ne moo jiite maire du Sénégal yëpp association des maires du Sénégal nga xam ne am naa fa sax ay cër kon moom it vraiment taxawaayam mook président Adama Diouf bi jiite département yi seen taxawaay ñoom it rafet na euh, ci layil ñu ci laajal ñu ci ci yëglul ñu ci côté nguur gi ba lu ñu amuloon démb ñu am ko kon daal Babacar vraiment ñoom ñëpp mënu ma leen a ñàkk gërëm ndax ñoom ñëpp seen participation ci dooleel ma ba ma def fa luñ jàpp ne ñu bëri defuñu ko loola moo indi loola. moo indi loola kon ñu ngi gërëm ak aussi bien sûr. Ah. ñaanu suñu kilifa yu baax ya fay yeewoo. Mhm. muy kilifa diine yi ci diine yëpp na mhm. muy diine musulman. Mhm. muy diine chrétienne. ñoom it wàccuñu ma ndax fu ma rek. moo tax bokk na ci li dal sama xel Babacar. balaa jant soo dinaa jot ay woote yu bari. yoo nga xam ne cant ak ngërëm la. waaye fa muy jeexee mooy ci ay ñaan. kon jàpp naa ne ñaan yooyu it. bàyyiwuñu ma. ñaanoo yi participé na ci. am na solo léegi ma jeexale foofu ci benn laaj laa ci jeexale rek am na ñoo xam ne dañ leen di wax ka ni seen i jeex na depuis bu yàgg ba ba tey yéen maire yi mais na ngi continuer ba tey ñu bàyyi leen ngeen continuer élection amul élection nga xam ne tamit seen ay wujju lañ ci politique bi loolu yow parce que nee nañ seen i jeex na bu yàgg actuellement maire yi lu ñuy jox maire boo xam ne mandaam jeex na ban budget ngeen di doxe actuellement ak lan moo tax ba tey élection maire yooyu mën koo tëgg ba ñi nga xam ne tamit dañ ci bëgg a dem ànd ci dem ci daal ba laaj bu am solo Babacar lu tax renouveler guñu wala boog wote waata guñu maire yi mm-hmm. ginnaaw ba det biñ ko waroon def passé lu tax mm-hmm. li ko waral mooy benn amu ci lenn ci li ko waral nga xam ne ci laa bëgg a ñëw mm-hmm. lu dependre ci nguur gi wala boog ci kujje gi walla boog way politique yi bokk ak nguur gi li ma leeral foofu mooy du politique lalu ko loolu laa bëgg a leeralal te pour wan la ne politique lalu ko maire yi ñi ci ëpp su ma jumul juróomi téeméer ak fanweer yi ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom ci senegal ay lewen ñun la ñu àndal. maire APR lañu. mu ngoog wala ñoo nga xam ni APR lañu ñu àndal dañu gëm ànd moom ci coalition. kon xam nga ñun ñoo ci ëpp waaye kon des na ñooñu ay maire lañu ñoom it ba tey te li ñu fa teg moo ñu fa tegandoo bu ñu koy beesalaat ñun ñëpp la ñuy beesalandaat laatondoo mm-hmm. suñuy siis euh, loolu leeral bu jaroon na wax la ñaaral bi mm-hmm. mooy ay tolluwaay moo tax boobu ba léegi defuñu ko bokk na ci par exemple dialogue bii nga dégg nga xam ne bëri na yu kujje gi doon diingat ci wàllu doxalin ci wàllu wote doo xam ne moom moo ko diingat ñun diingatuñ ko mu ne pour mu débattre ci élection il faut mu am yoo xam ne dañ ciy jubo daal di ko def mu soog a mun a dem déggoo ak waa nguur gi ci ñu dem ay élection bokkaat bokk na ci affaire lu ñuy wax fichier électoral fichier électoral mooy kàggu bi nga xam ne fa lañ denc mbooleem woote ñuy doomu Sénégal yi yewo Sénégal ak bitim réew dañu am âge wote am carte am carte woote maanaam ñu bindu pour wote ci kees googu registre boobu ñu koy wax fichier électoral ci tubaab ñoom moom lañu wax ne il faut ñu càmbaraat ko te ay millions wu doomu aadama la suma juumul élection présidentielle bi passé rek ñu ngi nekkoon ci juróom benn million ak juróomi téeméeri junni yu teg kon xam nga loolu liggéey bu rëy la. bien ñu càmbaraat ko ñun jàpp nañ ne lu leer rek moo ne. Hmm. ni vitrine ni maison de verre set wecc waaye comme nee nañ il faut ñu def ko te ñun munuñ koo def ñoom munuñ koo def ñoom ku jëkki il faut ñu am espèce bu doon football il ñu am arbitre ko nga xam ne. xam-xamam day ma jëm ci càmbar affaire u fichier fichier xam ku fa ne nu fa nekkee nekkam wér na xam lim bi xam ñu nekk ci situation bu ñu war a génnee mhm. xam maanaam daal xool xool ko daal ci gàttal mhm. ba xam ndax lañ dañ ca gis lu tax ñu am luñ ca soppi mhm. wala dañ koy wéyal noonu ubbiwaat ay bindu pour nit ñi dolle ko ci ñu jëm ci élection yi loolu nag dafa am euh, liggéey bu ñu waroon def pour tànn ñi koy càmbar moom nga dégg ñuy wax fan wii ne tànn nañu expert yi ñoo nar a ñëw Sénégal càmbar fichier boobu kon xam nga loolu dalil la bu am solo waaw fekk loolu amul mënta am te loolu pour mu am euh, euh, <coughs> sëñ Babacar dafa laajoon ay délai yoo xam ne maanaam mënoo koo liggéey ci lu yees nangami weer te loolu ku jéggi ak waa gi ci dialogue politique bi déggoon nañ ci manam déggoon nañ ci ni loolu kenn mënu koo liggéey ci lu yees diir sàngam diir sangam boobu nag mooy daw ba léegi nii. moo jeexagul moo jeexagul léegi nag comme mm-hmm. trouvé nañu ñi war a càmbar loolu. Mm-hmm. mais bu ñu ko càmbaree. Mm-hmm. <coughs> wala boog <coughs> avant sax ñu koy càmbar. dinañ xam <coughs> ci man durée mhm. la càmbar bi di jeex mhm. kon xam nga mën nañoo daal di ci dialogue bi mhm. ñu ngi profiter pour jaal euh, njobootu général ña nga xam ne jaajëfe moom ci taxaw bi mu amoon solo ba waxtaan woowu avance côté dialogue politique bi mais comme léegi fànn fichier bi moom daanaka léegi mu féete boor ndax ñi ko war a càmbar xamees na leen seen taxawaay dinañ xam ci diir ban lañ koy liggéey daal nañoo mën a waxtaan nag léegi ci kañ la ñuy dem. élection élection. am na solo. Mm, mm, mm. donc kon. Mhm. Euh, wax la ne la rek. Mhm. amu ci lenn lu dépendre ci nguur gi. Mhm. loo nga xam ne coobaarewu na. ci nguur gi. pour mu ne buñ ko def. parce que munoo am. ci juróomi téeméeri ak juróom fukk ak juróom ñaar. nga am téeméer ak fanweer. sa bilan jaar yoon. dégg nga bilan bi ma la bëggoon defal ci sama commune. Mhm. te yu mel noonu donc moo am ci commune yu. ñi am ak ñun. kon bu dee am na ku jaaxle du ko. bu doon mbir mi dañ naan làmb dañ nañ sëgg bëri léegi. Ah. waaye dadul làmb nag. Uh-huh. moo tax ñu ne nañu ko euh, ni sartu réew mi wax. Uh-huh. ak ni ñu déggoo ak ku jégi uh-huh. ba ñu euh, def ko euh, ci ci ci jàmm. jublu ci ci jàmm. am na solo.